war nga mën a am sa bénédiction famille ba tax na moom dëggeen jàpp na ni il faut rek mu waxtaan ci ak tantaam euh, donte nag tàkk loolu gënalu ko ndax jàpp na ni bu dëggeen jaaree ci yaayam rek mbir mi du gaaw ñu jàll ci tuuti moom nag gis nañu ni euh, bi ko Nino waxee waxu Karim dafa daal di furieuse daal di euh, mer ba futt ci saasi ba tax mu dal di daw dugg néegam tëdd mu mel ni kon moom mi nga xam ne moo di tuuti li ko Karim def métti na ko métti goo xamante ni bugul sax dégg turu moom nag dafa kontaan bay bëgg a dee ndax Omar rek déglu na ko te it nag lim ko waroon a wax na ko ko loolu nag tax mu koy waxtaan ak dëggeen ñoom ñaar ñëpp ñu kontaan waaye dëggeen itam moom it wax na ki nga xam ni moo di Aïta ni tonton Rasoul demandé na ko en mariage muy ñaari bonne nouvelle yoo xam ni ñoom ñaar ñi nga xam ni mën naa ne ñoo gën a baax ci euh, série bi ñoom ñoo ko am loolu nag la ñu naan ku muñ muñ ñoom ñaar kon muñ nañu waaye tey yàlla rek ñëw na daal di leen di wàllu si kon yaakaar naa ni kon def lu baax rek moom moo am solo nekk si njub nekk si baax baax rek moo am solo ndax boo ci nekkee yaakaar naa ne lu métti métti bés dina ñëw rek yàlla daal di la ci génnee te nag euh, defal la bànneex bi nga xam ni yeyoo nga ko ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni Lalla moom dafa ñëw di waxtaan ak Karim ndax jàpp na rek Karim am na lu mu def ki nga xam ni euh, moo di tuuti waaye Karim nangu cee wax mu mel ni kon loolu métti na Lalla ba tax na nag mu daal di koy mere waaye yaayam itam ñëw euh, daal di koy xas mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di Karim ni mu nekkee neexul wax a wax ba sonn loolu nag tax na yaayam ak lan la yëpp daal di koy wan uh, ginnaaw ñu jàll si jaari moom nag mu ngi waxtaan ak Omar uh, ngir nag mu uh, reconsidérer waat ki nga xam ni moo di Aïta comme jabaram daal di koy jéggalu waaye itam wax ñépp que ni liñ ko doon tuumal defu ci dara mu mel ni kon moom Omar bu yàggee di déglu jaari yaakaar naa këram dina neex te it nag si jàmm rek lay nekk ndax jaari dafa xam lu baax waaye xam li nga xam ni mooy yoon te loolu nag la koy digal moom Omar ñu jàll si alaaji alaaji nag moom teggiwul tànkam benn yoon moo ngi continuer continuer rek di harceler ki nga xam ni moo di Néné mu mel ni kon fi muy jëm ak Néné rek ndox amu fa ndax Néné li nga xam ni mi ngi xew neexu ko benn yoon ndax ku ne xam na ni Néné dafa am jëkkër waaye moom mi nga xam ni moo di alaaji mel na ni xool loolu lépp bëgg-bëggam rek la daal di uh, topp te loolu nag mën naa indil problème Néné ci biir kër gi ñu jàll ci ma maman Aïssa moom nag dafa kontaan bu baax a baax bi ko déggeen xamalee ni daa am ku koy bëgg te yéen nag da koo bëgg a ñaan si waaye nag moom mi nga xam ni moo di ma Aïssa problème am mooy dafa jigéen laaj na ko rek cinq millions ngir ki nga xam ne moo koy bëgg si daal di koy indi may gu njëkk muy loo xam ni kon lu doy waar la ndax yaakaar naa ni euh, yaay yi ñoom ñoo war a jàppale xale yi euh, surtout que ki nga xam ne moo di dëggeen toog na lu yàgg amul jëkkër te yàlla wanale ko ak góor gu baax euh, problème xaalis nar a nekk problème ndax yaakaar naa ni nit buy bëgg sa doom waroo koo rek daal di laaj xaalis waaye dangaa war a bàyyi moom li mu yéene ak li mu mën mu daal di koy def parce que boo laajee xaalis day mel ni dangaa jaay sa doom alors que itam jëndul jigéen kon yaakaar naa ni euh, li gën euh, mooy rek nga bàyyi lu ñëw nga xam ni euh, loolu la yàlla dogal waaye nag yaay joo xam ni dafa matérialiste boo ko amee rek daal di sonn te loolu nag moom moo dal ñoom dëggeen ñu jàll ci laal la moom nag mi ngi waxtaan ak tuuti ndax dafa bëgg xam li ko Karim def waaye tuuti nanguwut a wax ba tey mu mel ni koon moom tuuti ba tey digéreegul problème bi nga xam ni moom moo am loolu nag merloo na laal la ndax dafa jàpp ni ay xarit bu ñuy ànd ku am naqar da nga ko a partager ak sa morom ni tuuti moom dafa préféré garder li nga xam ni moom moo xew loolu nag wane nañu rek encore une fois li ko Karim def métti na ko ba ci kanamu yàlla ñu jàll ci tàkko moom nag lim bëgg euh, mooy euh, Rasoul bañ a daje ak yaayam ndax bu ko déggeen wonee yaayam rek waxtaanee mën na yàq seen euh, diggante wala mbébét bi nga xam ni am na ko ndax tàkko xam na bu baax a baax kuy yaayam waaye déggeen jàpp na ni loolu mënta ñàkk ndax faaw rek Rasoul ak ma ay sa waxtaan ndax affaire bi ñoom ñaar la concerné ndax ki nga xam ni moo déggeen mënta sëy tànk naka taa ay Aïcha daawu ci d'accord rek ndax moom mooy euh, waajuram mooy euh, kilifaam ñu jeexal ak séquence bu mujj bi ñu gis ni Omar delloo na ay ayta ay droit wam comme jabar loolu nag merloo na tàkko bu baax a baax ndax nekk na loo xam ne lu ko bett la kon mbokk internet yi foofu la yem ci épisode 28 euh, bu série Aïta ñu jox leen dig daje ci beneen épisode waaye laata boobu way leen di abonné ci seen série TV bu leen fàttee ba si cloche de bi